aywa tey moom dañoo xaabaabal mais on est dans la sensibilisation c'est une campagne et tout le monde a son rôle à jouer ñu jaajëfalaat bu baax a baax suñu invité professeur Mamadou Diop ñëw ñëw ci ñaari yéenekaay Groupe Futurs Médias l'observateur ak record aywa ñu dem l'observateur àlla la une euh, lu jëm nag ci conférence de leaders gis ngeen président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar compte rendu euh, di conclave mu mel ni ñoom nag indi nañu euh, daal ay faram ci seen lël boobu ñu amaloon Amadou Ba ak pacte d'engagement éthique bi mu fa amal Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba Euh, waxtaan wanu fa amal ak itam lu jëm ci euh, choix wu délégué wu parrainage yooyu yëpp itam euh, yéenekaay bi dellusiwaat na ci dellusiwaat itam ci candidature bu pur ñoom nag kañu tànn Aliou Mamadou Diala ñoom yéenekaay bi dellusiwaat nañ ci borom xam-xam boobu trajectoire de la surprise du chef noonu la ko waxee présidentielle ba tey ak itam mëna perturbation crainte d'une année scolaire et politique jàng ak jàngale xam ngeen ne école semaine bi euh, lay tijji jàngalekat yi ñoom démb dem nañ ca daara ya puisque ñoom ñooy njëkk a tijji waaye daal politique beeg ren nag euh, année scolaire 2023 2024 daal nee ñu bu ñu moytuwuleeg présidentielle beeg la ca jur ci coow mën na euh, am ay njeexintal ci njàng mi ñu wax itam ak la xew ca cité mixta muy ab scandale bu rëy jàpp leen fukki ndaw ak juróom-ñaar juróom-ñaar yi di ay njegemaar jàpp nañ leen ci benn appartement euh, meublé dégg ngeen lu jëm ci wàllu vole lu jëm ci ak càcc waaye itam jaay sa bopp ak proxénétisme loolu yëpp lañ ci gisoon ñu jeexalee wàllu caada euh, kii miin ngeen xar kanamam euh, Mouhamadou Fall moom nag moo interprété woon rôle lu Birima Euh, ci compte musical boobu Youssou Ndour doon amal foofee ca France mu ne pourquoi Youssou Ndour m'a choisi maanaam daal euh, tànneef bi ko Youssou Ndour tànn ci la dellu siwaat ay ba Cheikh Tidiane ñu jeexale ak record laata ñuy dem ci ummi mm, waaw journal euh, record euh, ñëw ci Nampalys Mendy euh, mi war a ci kanam tey ci ngoon Ligue des champions Lens di dalal Arsenal Nampalys donc confirmé face aux Gunners ba léegi ci wàllu football Mory Diaw cap à franchir épatant club une seule sélection ba débat bi posé wu jamono ji naan ndax dafa war a wutu Edouard wala déet ci biir Sénégal jaraaf le retour de Malick Daf Malick Daf dellu si ci club bi c'est son record tamit wax ci basket ak équipe nationale jigéen ñi mu jàpp ni parfait adjuvant ak Sylvain Lotti ñoom la ñu jàpp ni ñoom ñoo war a wutu Moustapha Guèye ci équipe boobule. jërëjëf. mu mel ni yéenekaay yi euh, yu Groupe Futurs Médias yi jeex na ñu dem ci Oumy Samb ci météo en express.